ay ca mi ngi noonu ku ci nekk rek fa nga nekk ñi ngi lay bëggee bu baax yéen tamit maa ngi leen di bëggee ku ci nekk fa nga nekk ñi ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di kontaan ci yéen it bu baax a baax a baax di leen wax ne leen man nii laa yeewoo tey hmm? euh, nuyu nañ leen euh, di leen wax ne leen ngeen waaj émission bi nag commencé na ñi nga xam ne ña ngay nelaw réglé wuñu woon seen réveil pour heure bi ma war a commencé yéen ñiy seetaan wootante leen ci seen biir ne leen Amina Poté euh, tàmbali na di nuyu waa Mauritanie bu baax a baax a baax hmm? Mauritanie moom heure bi duñ ko raté Gambie heure bi duñ ko raté partout dans le monde diaspora bi Europe ba Asie yi yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal parce que ku ci nekk da nga yeewu di koj euh, ki nga xamante ne mooy seen soppe bi leen di bégal non coow ci kanam seen soppe bi leen di bégal non mais wax ko ko seen soppe bi nga xam ne moo leen di bégal non bu tàngee torop duma ko naan Cheikh ana dute bi booy mbaye ko yor xaama nuyoo nga indi ko <laughs> jërëjëf euh, fan laa yemoon ci nuyoo sax ku ma mën a fàttali fu ma yemoon kenn moo ma mën a fàttali man fan laa yemoon ok maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm dute bi da lijjanti dute bi waaw këy waay waaw kay waay ñaw thank you ayca yéen ñëpp nuyu naa leen ah duñ def rek lu dul démarrer ci euh, laaj leen ci lu ngeen nekk Aba laa àndal euh, Serigne saaliw ak euh, Aba sëriñ Saliou Mbaye Cheikh ñaari Cheikh man nag kay wax la man mbaa duma mujj am jëkkër ju tudd Cheikh <laughs> ah Cheikh Cheikh Cheikh man mbaa duma mais Cheikh bëggoo ñëw taxaw fi ma présenté la ñëpp a ma naan ana Cheikh ana Cheikh kaay nii rek Cheikh. parce que ñëpp a ma naan kan mooy Cheikh kan mooy Cheikh surtout am na koo xam ne daf ma sonal ki yey Cheikh Cheikh nee leen kuku. <laughs> kii Cheikh pour ngeen may ma jàmm man damay ragal sax am jëkkër ju tudd Cheikh. ay ca abaa bu fekkee ne pare nga rek bàyyi daaru bi man tamit pare naa ñu teg ko ci rek mu tàng ñu dem ak yéen waa été la da ngay ubbi fermeture yi su fekkee hiver la da koy aj ba ci kaw gën a takk laase yi mu seere naan sa deret mais bu dee été la da ngay wàcce mu gën a wàcc ay ca Ibou Cissé laa àndal mbay Cheikh Abakara Serigne Saliou nee neenaa leen man toujours Saliou a ngi ci sama wet toujours ah toujours toujours toujours Saliou a ngi ci sama wet ñu teg ko ci gain ñu teg ko ci ayca let's go may nuyu waa TikTok euh, ku ci mel ni euh, euh, bonjour Amina dama la bëgg torop Moussa Ba Moussa Ba I love you too TikTok laa nekk nii di nuyu kuñ naan Awali Ndiaye Awali Ndiaye Ngom maa ngi lay nuyu ci TikTok bi di nuyu ku ñu naan euh, Soxu Maya Amina dama laa bëgg ngir jëmmi Serigne Saliou Amina seet si ma incha allah loolu dinañ ci ñëw may nuyu xale bi nga xam ne moom laa seeti woon démb ñu koy wax ndey sama benn rakk la sama doom boo xam ne ma nga HLM démb moom laa demoon seeti dinañ ci ñëw léegi surtout yéen ñi nekk extérieur bëgg ay gejj ay netetu ay yéet ay diwtiir yu baax yooyu rek. ay tuufeur dinaa si ñëw ak yéen wax leen fi ngeen di jaar ba nday àmbale ko joxal leen ko seeni GP mu indil leen ko te du cang ci àll bi loolu may naa ko nday borom HLM ma ngay waajal boutique ba boutique bi géej gi rek lay jaay yéet ah Euh, Sophia maa la gën a bëgg ci Facebook bi Rabi euh, je t'aime euh, Tata I love you too Rabia euh, la Linguère 23 euh, Linguère maa la gën a bëgg ma ni tamit ñu dem laaj leen ci lu ngeen nekk teg ko ci booy na tàng eyi joƴeɗo fajar lonoyam go asema dole kun kote sa dole sa dole sa dole kun kote yaay dole baaxul ak sa kuuru nga doon da ko dooyi fonkal seet ci yàlla mu juboon na jàmbaar yu ma borom alal yu bare borom xam-xam yu rëy nekkee na jàkkaarloog yéen euh, bëgg a neexal nag euh, <coughs> bëgg a neexal nag seen journée mention spéciale ci Ange Amélia mi nga xam ne elle est trop professionnelle euh, six heures du matin la yeewu préparé li nga xam ne mooy maquillage du jour bi tey tey nag maquillage yu lundi bi nii la mel tey nii laa yeewoo ay ca li ñuy def mooy profito daw ba Facebook live doog xaar booy Omar mu yegg si sa invité bi mu ngi ci yoon <laughs> booy bi tey dafa am invité de plateau bi tey dina toj de booy bi Mame Ndiaye Savon la invité maam Ndiaye Savon mais Omar yow ku la xelal li pare nga mën nga ñëw ñu laaj ku la xelal lii ay ca ñu dem maye xaalis nag ci euh, ci TikTok bi comme Facebook live bi ñëwagul ñu dem euh, maye xaalis ci TikTok page Amina Poté bi pourquoi pas Eh, kii mi ngi tudd um, Aïda Sène tata dama laa bëgg trop may ma cheveux ok ay de Sène may nañ la cheveux mën nga ñëw fii ci euh, cosaan ñu jox la ko Aïda Sène euh, tata dama la bëgg trop Amina kañ nga may seet si euh, kañ nga ko bëgg rek ma seet si la Amina dolliwaat ñu ci loo ne bi ah doyaloo ok let's go abaabul bul xaar ñu dem euh, ci looleen ne bi doogu ñëwaat nag ci benn titi bu saf sàpp mm, wala au rêve Kumba Gawlo ku ngeen ñu tegal baax sa doole sa doole kenn xamul fooy xaaral ñoom musiciens yi chaque ma wax leen ne yéen seen orchestre mooy public bi dëgg la. waaye déglu déglu leen public. doole ji ci biir mbëggeel.

Valérie Alaaji Diouf tey asalaamaaleykum waa Sénégal non dégg nga ma leen ko déggee asalaamaaleykum waa Sénégal loolu la ñu waxoon mooy seen. parce may nañ la cinquante mille di nga ko jot Mouhamed Sène vingt cinq mille d'accord kon Mouhamed may nañ la vingt cinq mille. du ngeen bàyyi rek cinquante mille yi ratax balaa yaakaaram di tas d'accord kon ñëpp du ñu am ay ca Mouhamed. Euh, seen waa Mohamed may nañ la cinquante mille euh, di nga ko jot léegi ci sa téléphone euh, quatre cheveux lañ fi am tey dañu maye quatre cheveux li ci des yëpp ñu maye xaalis ma maye xaalis euh, Pape Birago Pape Birago may nañ la vingt cinq mille yow tamit Mohamed seen vingt cinq mille la Pape Birago may nañ la yow tamit vingt cinq mille Boukaraar soppe kra soppe kra may nañ la vingt cinq mille yow yi tamit bugul dara bugul dara may nañ la noonu la tudd dara bugul dara may nañ la cinq mille yow yi tamit buggul dara euh, Moussa euh, Jam musaa Jam may nañ la euh, Moussa Jama Jam may nañ la vingt cinq mille yow yi tamit mais li xanaa tàkkul geen waaye yow mais yow lii tàng na di lii mi ngi ñëw nii Kavalo Chaïcha yaa ayca Moussa jam waaw may nañ ko vingt cinq mille moom tamit Moussa Diam Kali Ndiaye Kali Ndiaye may nañ la vingt cinq mille euh, ma bëgg maam Fallou may nañ la euh, cheveux naturel mën nga ñëw fii jël si ko ak sa profil ñu ngi ko am ay ayca mi ngi noonu du ñu def rek lu dul bàyyi Omar mu yegg si mu wax ma lan moo ko lan moo ko inspiré tey ba mu invité xale boobu nga xam ne ñëpp ko bëgg ay ca Omar ñëwal. metti Baye Fall nu mu demee ah. gaañ. yaa ngi am jàmm mais dafa mel ne tey Mame Ndiaye nga am de. tey waa Mame Ndiaye sax moom. Hmm. Mhm. tey dafa mel ne fii dafay toj de. nee na ma mi ngi ci yoon bi di yegg moom dafa dem makki woo ji xanaa. Ah. xaa daa dem si Anita. ñàkkul mu jaar fa. yow entre nous ñu waxtaan balaa Mame Ndiaye di yegg si. waaw yow Mame Ndiaye lu tax nga invité ko loo ko bëgg a laaj. non dama gis acharnement bi ak ni mu commencé ci zéro. waaw nga ba yegsi ci benn niveau. Mhm. wax ji mais na nga guddee de. non nga tëdd insomnie laa amee sama yaay la waxal ba 3 heures. <laughs> sa yaay nga doon waxal. ba 3 heures. sa yaay fu nekk. nii fii Pikine kër papam xanaa dëkku leen yéen ñaar. non non. yow yaa ngi Grand Dakar. daf maa daf maa wóolu rek bàyyi ma Grand Dakar. ah boo. mais mère bi dal na xel de. <laughs> <laughs> kon xanaa sa yaay wuute na man man gis nga ma ni may dakonee ci kaw booy bi. non moom ma daf maa wóolu na. Ah. Ah. non man nag dama man damaa métti. ah eh, normal noonu la. Aïcha léegi ngeen ne euh, lan moo tax dañuy profité waxtaan balaa Maam Ndiaye di yegg si parce que am nga loo parce que nit boo ko invité rek am nga loo bëgg a ci moom wala loo gis ci moom lu la neexul wala loo xamante ne waree ba moo tax nga invité ko tey lu tax nga invité Maam Ndiaye Savon ñu may waat léegi xaalis ci euh, TikTok Amina Poteles. mooy comme ni mu la ko waxee rek ni mu commencé wee ci zéro. Mm-hmm. ba yegg si fii mu yegg si di def propre communication propre promotion ci ay plateformes yi mu am. bu jëkk ba bu ñu la waxoon ni nit dina jaay savon ba yegg si ci benn niveau bi. Mhm. ba pare doon jigéen yow pour nga gëm ko dafay xaw a gauche ci yow. mais moom mu gëm ko. Mhm. teewul mhm. chaque jour rek da ngay dégg bu ñaaw. du jóge ci nit di ñëw ci moom. concurrence nag moom dafay am ci lépp loo gis. mais mu mu mu mu mu loyal quoi. mu loyal loo xamante ne nii. métier boo ci nekkee te amul kenn ku ñëw pour concurrence ak yow xamal ni des na. des na. dafa leer. Mm-hmm. mais Sénégal fii concurrence dafa metti mm-hmm. du yem kase ci concurrence. Mm-hmm. da yem ci ay wax mu dugg ci ay kilifa dugg ci ay wéyjur sa yaay lii sa mam lii sa papa. waaw loolu dañ ko war a bàyyi. voilà te moom dégg yàgg nañ ko dégg ci moom quoi. ay nit nekk fii nit ñi mm. bëgg a dépasser bi muy jaay. bëgg a dem ci propre famille que ça soit Sénégal wala international mais noo juddoo ah. waaw mais nag pour man. ku taal sa bopp. doo tal lijjanti keneen. keneen daa nu mu am ak nu mu mel. parce que moom mi ngi liggéey liggéeyam. mi ngi def li mu war a def nit nag buy def li mu war a def yow defal li nga war a def dëgg te nga seetaan ko yow jàpp nga dañ ko war a may doole pour ki bëgg a bàyyi taxawaalu mhm. ñëw mel ni Mame Ndiaye Savon mhm. parce que Mame Ndiaye wane na bunt bi ah wane na ko de mhm. wane na ne y'a pas son looy def rek gëm ko te liggéey kenn du ko jombale sa bopp non mu mi ngi di jaay sa saabu lay jaay te tey pratiquement booy tudd ñu baax ci réew mi di nga ko ci boole. Mhm. li ko waral mooy famem naw nañu ko. dëgg la jox nañu ko cër. ay mbokki jëkkëram naw ko waaw mi ngi mi ngi contribuer ci famem nit nag lépp lu muy def di contribuer ci famem. Mhm. famem kontaan ci moom. Mhm. wax dëgg yàlla. war nañ ko delloo njukkal. yow lan nga dégg ci luñ ko wax ba mu metti la ba tax nga bëgg ko yokk doole. non damay tëdd barkaati démb dégg benn waaye xaw ma sax turam. nekkul Sénégal. jarul tudd tur sax. xaw nekkul Sénégal wax ba tudd ay ba pare mel ni ku koy dóor ci kaw keneen ku jigéen koo xamante ne ni su ma jumul dafay jaay saabu comme mam jaay hmm. di ci boole ay nit maanaam loo xamante ne ni xaaruñu ko woon sax d'habitude ci góor ko en hmm. ndax jigéen buy daan doole ngay góor boo ko jàppale je pense que lii gën mooy yow nga lem ba mu roon nga toog ci est-ce que Mame Ndiaye jotewul ak ñoom dara ak lu ñu mën a jotee hmm. pour man réseaux sociaux fajul dara dëgg la Sénégal lépp ci réseaux sociaux lañ koy fajee pour loolu réseaux d'habitude est-ce que du pour jaay. Mhm. pour jaay dara ko mais léegi pour faj la. damay jot ak yow ma dem toog ci réseaux sociaux yi. yàq sa dara ba pare jooy. waaw dañuy victimiser wu mais je pense que maam Ndiaye war na am am na esprit dépassement du ma ne war na ko am. Mhm. parce que dama koy xool. Hmm? mu nekk daam boo xam ne ah, am na esprit dépassement. Mhm. am na benn euh, doone maturité mais gëm-gëm bu ne ci moom mm-hmm. maam li ko ñor mooy dootul xaalis bi mais amuuru liggéey la am mm-hmm. boo gisee maam bu nit ñi nekkee place sax di déconner di fo danga koy gis toujours rek mi ngi ci toujours rek mi ngi ci euh, mi ngi ci liggéeyam euh, nekk ci li nga xamante ne nii moo moom moo ko ñor mm-hmm. muy business xam nga nit sax dina business ndax xaalis ñu xam ne xaalis a tax muy business. Mhm. mais moom boo koy xool dangay xam ne kii liggéey bee ko ñor. Mhm. dootul li muy gañe mais liggéey bee ko ñor. te mi ngi liggéey nag. ah bu baax. te mi ngi liggéey parce que boo xoolee nee la kuy liggéey dëggantaan daay boo ko xoolee di nga xam ne kii mi ngi liggéey. yow lan nga foog ne bu ñëwee moom lañ ko war a wax euh, bu leen toppatoo bu leen faale parce que defe naa bu bëggee jël euh, benn euh, huit heures temps. Mhm. def ko ci moom ak ay clientam ak beneen business bu mu war a créer bu bokkul ak savon bi bi bi mu débuté. Mhm. yaakaar naa bu bëggee xaaj journée jël 4 heures de temps yi jox ko ay noonam jël beneen 4 heures bi liggéey ko est-ce que 4 heures de temps di ko jox say noon yoon la. non non parce que. une minute rek ëpp na ci noonu. pour man ku la talul wala mhm. kuy toog di wax sa ay safal. Mhm. war nga koo dégg nag mais waroo ko lijjanti. dëgg la su dee ko sóor mais bul toppatoo. waaw parce que dégg bi moom mooy tax nga moytu ko. mais fexeel muy lekk sa dërëm. fexeel sa njëriñ di dem ci moom mhm. te yow bu ko lijjanti parce que mënulu la dara na mhm. ndax bu la mënuloon dara du toog yàq sa der non ba pare barki démb dama koy wax euh, kenn euh, ma ne ko ñun guerre bi dootul entre ñun non non bi léegi dañ lay jéggi yow bëgg dugg ci sa yaay wala sa papa mais moom ni mu def ba xam sa sa ñaawteefu parents yi mhm. sa parents yi gore na ñaaw ba ñëpp xam ko. Mhm. mais moom mi nga xam ne ndeyam ci biir sëy la toog ñaawee ci sëy bi xam nga réew mi dañoo mën a wax rek mais koo waxal mën na laa waxal. waaw fii réew mi nul n'est parfait. te sos sax nag dafa yomb. non mais doo sax sos xam nga moom daf laa sosal ba saaga sa yaay wala mu sosal la ba saaga sa papa mais yow boo demee ba waa koñ ba dee la ni ndeyam sëyalee woon baayam. Mhm. moom dana bàyyi di xas yu jàmbur yi. amul benn njëriñ. parce que nit dina toog ci kër. muuru ni ibaadu sol lu yiw ñu wàcce ko ci kër gi mu lekk laax ba mu toogee ba tey jugul te nee naa leen doom yam fa jur jëkkëram moomu ko kon xam nga yow sa yaay ji ne ci mbedd mee ko tane wala sa papa ji naan di daanu ci mbedd mi fier na sax suñ borom teg ko nattu naan sàngara mhm. kon yow bul jàpp ni sa ndey ak sa baay ñi ngi ci kër gi rek dangaa war a xas ñi ci mbedd mi ñi ci mbedd mi du seen du seen euh, du seen euh, buggeewuñ ko noonu. du seen yaafuus. du seen yaafuus. Mhm. te du seen ñàkk fayda. Mhm. parce que souvent famille lëmb suñ borom dana jël kenn def ca la ko neex. ni ñuy jëlee famille lëmb def ci ku mel ni ñu koy tiitaroo. Mhm. noonu lay jëlee famille lëmb def ci ku mel ni Baba Dof. mais est-ce que dañ war a topp kooku naan ko sa papa mooy Baba Dof. du yoon. bëri na xale yoo xam ne ci réew mi bëgg tekki nañ dara bëgg a faj ay buumu gàcce mais ci seeni parent lañ leen di jaar di leen wax yoo xam ne du ñu ñeme tey bu fekkee danga bëgg a guerre ak Omar mais xas ko ci Omar mais bu ko xas ci papaay Omar. Mhm. du ma nangu loolu. te bëri na ñoo xamante ne nii tey jii seen entourage tey sa maam dañ ko daan tam fii dëmm sa yaay lii lañ ko fi daan waxal sa mais suñu yoon nekkul si suñu yaay yi ñun. ñun ñooñu suñu bopp sax moo ñu war a doy quoi. mais yow lan seen wàllu wéy sa yoon lu sa yoon ci sa yaay ak sa papa te du juddu nga fa am. xam nga lu la war nañ mel bu la neexul nga jéem a naxanteeg ñoom di dugal ci kër gi ndànk-ndànk mais doo ko saaga mbaa nga dóor ko. Hmm. ndey du moroom papa du moroom ki la xool nag ba jam la joloore ci sa ndey bu fekkee doom ju nar tekki ëllëg nga yow tamit da ngay pëttaxlu ci biir famille wan ko ne ko sa ndey jii nga jàpp ni daa toog muñ di sëyal sa papa da dem waa koñ bi wax la moom ni mu fa duggee woon. mais des fois sax xam na am nay wax yoo xamante ne tax dafa jarut a toog. mais souvent Omar am na yoo xam ne jarut a tontu mais xase da yàq da yàq askan. waaw wax naa ko barki de mel ne leen commentaire yu négatif yi li tax tey jii su ma nee Omar rek nit ñi ne waxul ak Omar Cheikh lay waxal mais loolu mu yàq dëkk bi. dama naan mais Omar waaye yow bii du mais Omar na góore nit ñi ne Wally Seck lay waxal mais ku ñeme Wally sekk doo gaar waale Wally Seck mais danga naan direct man Wally sekk laay waxal. mais mënoo ku wax ak Omar rek nga jël wax ji ne kii waxul ak Omar Cheikh lay waxal. day dàq ginaar waxaale soxlam te mu ñeme naa wax li mu bëgg a wax moom. bi bien jàmbaar du gaaruwaale. gentleman du du du gaaruwaale. li ma naan xale yi désactiver leen seen commentaire yi ngeen filtrer parce que tey bu la leeree ni booy nekkoo ci dara lu lëndëm. lu la waay bindal dala koo sosal kon bul bul nëbb say commentaire yow commentaire yow yaa ngi ko def invisible mu bëri ay cœur bëri li la nit ñi di apprécier benn bu négatif tax yow nga filtrer sa commentaire te xam nga ne kooku lim lay wax dala koy sosal mais désactiver leen seen commentaire yi te jot bi sax dafa bëri ci dëkk bi loolu mooy waral des fois nga xool nit koo xamante ne ni toute une journée dafay téye téléphone am dara du ko waral lu dul ut connexion bu doy nag ah mais loolu jot la Omar ku wax li mu sentir moom lu mu fil boo ko boo waxee li nga fil yow ñu saaga la. non ma yow xam nga heure bi yaa ngi tey ci sa plateau nii exemple xam nga taloo euh, tamoo taloo bokk tama ba pare di woqatu xam nga tama kenn mënu koo bokk ba pare di woqatu. di nga tëgg lu la neex. fi mu ne boo bokkee sa tama nu la neex ngay tëggi. waaw tey yaa ngi nii toog ci sa palaato tey heure bii nga toog jàkkaarlook sénégalais yi di leen bégal am na koo xam ne moom amut lu mu def. mais ma nga gore toog di la seetaan wala muy use maayinam ci lu positif mais ki soxor te yéenewul Omar fi mu toog ma nga ca direct ba di ruube non waaye booy booy booy Grand Dakar xam naa la booy fii xoola grand yi yaa leen di livrer affaire yi booy yaa leen di livrer warga bi yàqkat la mm-hmm. est-ce que yaa ngi understand mm-hmm. moo tax commentaire bu négatif waratul métti benn sénégalais booy na ci noppi yi de doole ku ko am kenn du la xeexal ba pare ku ne ci yoon doo wut ku la xeexal te réew mi dafa bari ñoo xam ne ñu wax ko te dee nekkuñ ci yoon ba pare ut gannaaw bu doya doya doy di leen financer pour guerre mm-hmm. non ñun nekkuñ Rwanda <laughs> nekkuñ ay affaire da gannaaw moo war a jeex ba pare mais bul nangu tey ànd ak poté bëgg lu ma neex ma lay jox ay cinq mille dix mille nga may nga may nga may wàcceel ga non non su ma nee la mais Omar xoolal commentaire yi dañ ma ciy sonal xoolal li ngeen ne man noo peut man góor yàlla laa sama yaay jurul ku ma war a topp di la saagaal. effectivement. bu dee jigéen nga ne ah mais man peut-être gënu bu ma ëppalee tamit gënu ma du ma dem di saagaal benn ndaanaan ndax kenn. wax bu ñaw sax na dafa jëmul dafa dëkkul fi mu jëm. mais nit ñi tollootuñ ci xool ndax ki lay wax baax na walla bon na nit ñi ñoo bëggatul ku wax ci ñoom te wax mënta ñàkk xam nga boo demee tey ba. suñ nee waay yow Omar waaye sa bopp bi dafa waaye dafa lii ñu ne mais kii Wally Seck lay waxal wala kii Youssou Ndour lay waxal wala kii kii àddina kon mi ngi bëgg a yàqu. Mhm. démb dama dégg benn booy mu ne Sénégal danga daan dëkk ci benn kër kii nekk PS kii nekk PDS te terewul bu jour élection jotee ñoom ñi bokk kër ñooy ànd dem ca ecole ya voté mhm. buñ paree ànd ñëw añ seen añ toog xaar résultat bu ngoon jotee ñu toog ñun ñëpp xaar résultat te du tax ñu rayante ci biir salle bi te ñun ñëppay bokk salle bi de di xool ndax Ablaye Wade la wala Abdou Diouf a toog. te mhm. coow du jëm. mais léegi dafa dafa léegi nag léegi def sa choix sax dafa metti mais pour nga toog ci na diw laa faral sax dafa metti mais loolu il faut ñu ñu ñu ñu. yu bari foo nee fii laa far ñi tuug fii. ñu ñu je pense que il faut ñun ku ci nekk ci sa bopp nga wéet recadrer sa sa sa sa bopp. réew bu amut yërmande réew mi du dox. non non du il faut réew am yërmande ki ñu war a yërëm tamit def loo xamante ne nit ki du ngeen séq sax lu muy xoolee ba xam ne war na laa yërëm. Mhm. parce que yërmande looy exploité la boo yërëmtaloo ñu yërëm la. mais gis nga bu fekkee ne da nga correct kenn dootu la yërëm dañu lay respecté ndax ñaar moo am pour jàmm am ñu yërëm la bañ la jege wala ñu respecté la di la moytu. Mhm. pour ñu parce que dama gis ni Euh, barki dem ba may ñëw ci tele bi maa ngi koy bëggoon a développé mais temps bi xaju ci woon. Mhm. ñiy dawal uskuteer yi. jakarta yi ak dafa ñëw ba yem ci police bi rek bëgg a këdd. gis na ne police baa ngi ñëw ci moom pour arrêter ko mu ñëw ba tolloog police bi rek bëgg a daw mais xoolal nii la ko def pëpp moog jakarta bi ñu këpp. njaganjaay bu bon bi doon ñëw ci gannaaw mooy oto njaganjaay yiy jël nit ñi ci mbedd yi. pas ay yu weex yi yu weex yi. Mhm. njaganjaay bi amul porte amul dara. xoolal bër scooter bi day daanu njaga njaay bi di yegg si bu amutoon frain day boole booy bi ak scooter bi pour nga xam ni ñoom ñaar ñëpp tey moom leer na ko ne police daf ko war a arrêté yow taxawal mu arrêté la nga présenté say document parce que boo demee ba nekk ci tali da nga war a matal say këyit rawatina nga yor deux roues. Mhm. que réew mi fi mu ne moto yi ñoo ëpp oto yi. cag cag ñoom xam nañ ñi leen policiers yi tegee choc fan yii. Mhm. kon Omar yor sa 300000 bu mu la tax a jënd scooter te yoroo kayit war nga yor permis war nga yor carte grise war nga am assurance. parce que loolu moo lay assuré yow. Mhm. loolu mooy tax boo dawee ba mbëkk nit dañ koy lijjanti mhm. mais boo yorul benn kayit yor deux roues nga rey nit daw fu ñu lay gisee kooku du perte. looloo tax police bi taxaw ci mbedd mi. nga yor deux roues yor ay jam ci sa saak agressé nit te yoroo kayit amoo matricule fu ñu lay jàppee. ñu mel noonu nag ñoo tax policiers yi des fois ñuy sonal borom càq-càq yi. parce que ñooñu ñoo tax ñu policiers yi taxaw ci mbedd mi mais tamit policiers yi il faut ñu xam ne tamit ñëpp ñu ay bandi ci borom jakarta yi. Mhm. ñu ci bëri kër lañ yor di daw dépense. Mhm. mais booy dawal moto moo gënoon ñoom ñëpp ñu wàcc ci mbedd mi di sàcc. fuuf sax. monde bi léegi ñëpp moto la ñu yor boo bëggee moto bu romb nga jàpp ko gaare ko mu war a liggéey journée bi benn trois 3000 4000 francs bu mu yóbbu këram nga tëye ko 9h ci suba ba 15h mais loolu il faut ñu dawal ci yërmande tamit. loraange rek lay jur il faut que ñu dawal ci yërmande te ñiy dawal moto responsable lu baax tax leen a jóg ci scooter yi. Mhm. nit mën nga yor moto. nit ki yor Lexus te du la gën a set. du la gën a luxe ndax tey nii nga def ba ngay ñëw ci palaato bi man tey bu ma doon dawal moto noonu laay def dinaa sangu ba set